mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalaat ci ànd geeg topp gi seen site numéro un de l' actualité sur mobile Sénégal fan yii nu génn amoon nañ cas boo xam ne indi woon nañ leen ko ci communiqué gi CNRA conseil national de la régulation audiovisuelle génnee woon par rapport à l' émission confrontation bi suñu jigéen Bijou Ngoné di Eh, amal fële na la ca 2STV yi ànd kook Big Taf nga xamante ni dañu invité woon ay féticheurs ak ay médecins traditionnels eh, ngir ñu wane fa ay karaama di wane seen kéemtaan ak ci li nga xamante ni moom la ñuy yëngu waaye loole nag dafa indi woon coow lu rëy ba communauté eh, Baye Fall bi ñu ngi leen di rendre hommage de passage génnoon maanaam réagir génnee seen colère ak seen naqar ci loolee nga xam ne émission bi wane na ko ndax kenn ci féticheurs yi dafa. tàkkoon ma anam jël maam Cheikh Ibrahima Fall loolu taxoon na waa CNRA doon exiger ay excuse publique waaye tamit seen numéro yii du ñëw ñu bàyyi xel maanaam règle yi nga xamante ni moom lañ war a amalee seen émission yi waaye nag tey euh, suñu jigéen moom euh, bijou dafa euh, maanaam def ay nu ñu tuddi sax post ngir jéggalu ngir maanaam massaw communauté Baye Fall bi rawatina xalif général de Baye Fall ci loolee nga xam ne xew na fa te accepté nañ seen tort ci li nga xamante ni ñoom am na te xëy na bu doon seen sago du doon luy am waaye du yéene wala jubluwaay lenn ci li nga xamante dafay indi gàllankoor wala dafay yàq maanaam euh, maanaam diggante gi am fi mu ne nii ci réew mi ci commun vouloir de vie commune ci euh, maanaam communauté religieuse yi ci réew mi tey tamit gis nañ ne tamit occasion loon xëy na ngir wane tàppale gi nga xamante ne ni moom la yenn euh, borom xam-xam yi li ñuy wootewoo di ko mbubboo amaloon kon mbokk yi di leen xamal ni cas bi man la ca topp mooy que ni jéggalu Bijou jéggalu na baalu na ak askanu Sénégal rawatina communauté Baye Fall bi ci seen turu xalif di ko fi di ko ñaanal yàlla mu yàgg dégg loolu te di leen jaajëfal